may say nit moom du ànd kër moo ëpp pay nagal na nga daw ku ñeme na nga taxaw ku mbokk waaw wujju eh, ñun ñooy yuuxu ba pare wala wujju naam xam nga ni àndoon après ah, la am dama jekk mbaxana li nga def moo waral kaane place baa ngi doo ñëw toog foofu waaw ah, yow xam nga ne yow jekk mbaxana man la gën a nopp yow lu xam nga loolu sax nag non non non man la gën a nopp nopp ma moo tax nag mu ja jaxase ñaari ay waa waaw yéen tamit ak ah, plus c'est le beau temps nag. waaw mi ngi noonu la te ginnaaw jaaw ginnaaw ay jàmm ci gën. ay bu leen yàlla boole ñu ah, bokk wërsëg. bokk wërsëg mënu la bo bu ko defee. ah chérie lii moom dama lay jox ñu nekk jàmm ah nekk ah, na fi. Hmm? da nga daan kii rek. Nenek moom ah! nee na fecce yaa koy feccal guddi gi. non bu fàttaliku nag sama xarit sama xarit bu fàttaliku ginnaaw ay jeex day soxor te man xam naa ne si yow la jéng barki yonent bi. mais yéen nag da ngeen a da ngeen a da ngeen a far. waaw waaw ñaareel bi bu fay ah, ma ak ñaar bu ko defati. man de gis tax ngeen ragal am jabar. <laughs> lu tax lu tax xam naa ku koy am de nang ko pare ñaare ah ñetteel ku koy am nang ko pare bu ko kenn ragal bu ko kenn ragal bu kenn ragal ñaari jabar ba ñett ba ñeent parce que digleb suñu borom la li ñu ragal xam ngeen lan la manque équilibre kese waaye bu ñu ko mënee am rek daan naa ko si mu naan góor na ndigg la kii rek mooy loolu jigéen gi day toog par la force uy leen ma leen da xam saf nag. fu may ne nii. awa bi la ah! ba awa nga wala ñaareel. awa bu awa. amee xoolal